bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.com. point kaddu gi euh, di addo fii ci euh, Medina Baye ngeen ñuy teewloo ca iya euh, juróom-ñeenti waxtu jot na ci suba gi dal leen ak jàmm bu ngeen taaxirloo ñu jukki leen la ca gën a fës syndicat bi di SADEF la ñuy sàkku nag jamono ji mooy ñu tëggaat daar daar ay élection de représentativité syndicale gannaaw ba cour suprême nee na lee arrêté ministériel ba nga xamee ne moo fësaloon résultat définitif ya kaddu yu ni mel nag ñu ko jibalee fii ci Kaolack Euh, gannaaw ab journée d'intégration bu ñu fi doon amal lu ni mel dañ ca dégg Alioune Badara Diop euh, gannaaw njeexitalu mandat ba association des boutiquiers détaillants du Sénégal ñoom nag bànqaas bi ci Kaolack ña nga doon amal ay coppite ca bureau ba tabb nañu njiit lu yees Alioune Badara Ndiaye lay wuyoo yéene ga mu am ci association boobee loolee itam dañ ca dégg Cheikh Tidiane Diagne ci diggante ajuma ak tey jii nag réew mi yëngu na lool ci ay réaction jëmee ko kon ci ëttu yu xibaar yi waaye itam nag wàllum liberté de la presse moo xam waay taskatu xibaar yi syndicat journaliste kenn ku nekk itam daal dinay naqarlu ba fa naqarlu yem agression nga nga xamee ne def nañu ko ci njiital 7TV di Maimouna Ndour euh, Faye lu ni mel itam des na ko yaatal ci biir euh, xibaar yi euh, jëm ci loi amnistie ga ñuy nasaka noc guddi yi ci réew mi ñoom nag kàngam yi faree ci daara yu kawe yi àddu nañu ca mbir moomee maanaam daal waa universitaire pour la démocratie nee nañu nag ànduñu benn yoon ca boobee loi la ñu bëgg nag jamono ji mooy ñu leeral ñu leer nañ itam enquête ya nga xamee ni ibbi woon nañu ko lu ni mel itam des na ko yaatal ci catal xibaar yi bu li lépp yembee daañu teg xabaaru bi ci réew tàggat yaram ak li ci yéenekaay yi mu yemboog la ca gën a fës léegi léegi ñu indi leen yaatal gi ak faram-fàcce gi. Euh, ci kaddu gi euh, ma feggoo ci ak Codou Seck kenn mi ci machine bi kaddu googe euh, di addo fii ci studio Alioune Momar Lo xibaar yi des na ko dooree fii ci diwaan bi ak it lu ñu leen junju Alioune Badara Ndiaye mooy ka ñu yees ngir itam mu dal di jiite fii ci Kaolack association des boutiquiers détaillants du Sénégal ab assemblée général la ñu doon amal Cheikh Tidiane Diagne. association des boutiquiers détaillants du Sénégal banqaas gi fare kii ci diwaanu Kaolack daal dina ñuy renouveler bureau bi nga xamante ne moo fi nekkoon te Ardo Ngim nekkoon secrétaire général bi ki ñuy wax Alioune Badara Ndiaye nag jamono ji mooy njiitu kuréel gi nu mel fii ci kawlak dal di jiite ñetti téeméeru jaaykati boutique yi nekk fii ci diwaan bi ñu dal di koy xaaj ci fukk ak juróom-ñaari pàcc moom nag gannaaw bi ñu ko tabee wax na bëgg-bëgg yi nga xamante ne moom la am ngir suqali secteur bi ni mel. ABDS par deux ans la deux ans yu nekk dafa am renouvellement de bureau ñu fas yéene liggéey li nga xam ne mooy tax boutique am daraja mooy tax boutique am gëdd ci biir Sénégal tax boutique xam mooy kan ci biir Sénégal parce que boutique dafa nekk benn fonction boo xam ne nit ñi dañ koo xeeb te dafa nekk fonction boo xam ne que fonction bu ko ëpp amul ci Sénégal. li ñu bëgg jamono ji nag moo di nguur gi jàppale leen ba ñu am ay formation maanaam tàggatu ngir ñu gën am xam-xam ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def Alioune Badara Ndiaye président bu yees bi jiite association boutique détaillants yi nekk ci Sénégal fii ci Kaolack. nguur gi li ñuy xaar fi ñoom dafa bari. parce que ñun mënuñoo dem sans nguur gi. mais nguur gi it mënut a dem sans boutique. li ñu bëgg kay mooy lu ñoŋal suñu liggéey. loo xam ne boutique bu nekk boo toogee di gis sa bopp. employé émission bu baax. ci seen ndege mi nag waxtaanee nañu tamit ponk bi nga xamante ne moom moo ñeel grande surface yi ñu daal def fii ci diwaanu Kaolack président bi daal di kii addu. Auchan ñun mënuñoo concurrence ak Auchan ñun ñoo ko doole te ñun ñoo ko gën a jege askan wi te Auchan du jaay juróomi dërëmu kaani du jaay fukki dërëmu meew kon ñun ñoo gën jege Auchan ak askan wi pour concurrence ak Auchan yomb na ci ñun parce yow mi nga xam ne yow yaa dëkk ci koñ fa jëndoon un milliard bu manqué benn piscine doo génn ak mbuus. ñiy jaay boutique te fare ci diwaanu nag nee nañu dinañu fexe ba lépp loo xamante ne jafe la woon ñu daal di koy saafara lii itam di ay kàddu njiit lu yees li nga xamante ne moom la ñu fal ci ay bës bi la ñu génn. Euh, gannaaw euh, pal euh, gu yees googee nag Cheikh Tidiane jaañ ma nga doon leeral seeraayu njëg lii waaye itam nag ceeb bi nga xamee ne xaw naa yi manqué naka noonu itam lu ko jiitu nag ma nga doon fësal ñoom boutiquier yi yéene gi nga xamee ne am nañu ko rek ngir gën jege askan wi Alioune Badara Ndiaye ne xam na rôle am ca kàddu ya mu ti Cheikh Tidiane Diagne. waa sama rol ci loolu de mooy jéem cee taxaw niñ ci war a taxawee jéem cee dox niñ ci war a doxee ndax euh, fan passé rek dem nañ contrôle économie doon waxtaan ak commissaire au compte pour affaire ceeb bi kon ñun sunu wàll ak sunu taxawaay mooy taxaw ci ndax euh, ñun buñ sañoon askan wi kenn du sonn ndax ñun askan wi moo ñu fi teg te ñun ñoo gën a jege askan wi kon ñun buñ sañoon askan wi kenn du sonn fan yee passé rek dem nañ fa te ñu ngi xaaraat moom appel ndax moom moo ñu war a woo pour ñu toogaat waxtaan situation ñàkk ceeb bi fi mu toll ci marché bi mooy fi mu toll woon rek ba nëga ni mu ngi ñàkk ba nëga ni moom ceeb bareegul ni mu war bare actuellement xam nga ñun mënuñ la wax fu mu manqué dëgg dëgg dëgg dëgg parce que ñun li ñu xam mooy dem ci magasin jënd soo demee ci magasin fekkoo fa ceeb rek da nga ne ceeb manqué na ñun boutique moo mucc am na grossiste am na demi grossiste boutique ci demi grossiste lay jëndee demi grossiste mooy jënd ci grossiste ñun bu demee ci demi grossiste bi gisuñ rek mooy manqué na loolay ci boutique doo fa njëg bi fi mu nekk nii bi ñu mooy euh, amagul euh, prix boo xam ne dañ koo teg prix bi nu teg mooy loo jëndee rek lii nga ciy teg ñun loolu la ñu tegal mais xam nga ba ñuy wax quatre cent ak quatre cent cinquante dafa amoon ceeb bu fi nekk ak bu fi nekkoon. ban ceeb la. américain mu ngi fi woon. bongo mu ngi fi woon siam mu ngi fi woon ceeb bu sew mu ngi fi woon. ceeb bu sew lan la doon wax naan la lii lay jar bongo lii lay jar siam lii lay jar actuellement ceeb bu sew dafa xaw a manqué moo tax ñu ne la ceeb bu fi nekk rek li ñu mën a tegal marchand bénéfice mooy sept cent cinquante 750 yooyu loo mënti jëndee rek 750 yooyu ngay teg ñun luñ koy doxalee jëndkat yi yomb na ñun nee nañ la toujours ñun clients yi ñooy suñ maître ñun boutique yi amul lu arrangé ak lu dérangé ñun li lii suñ avantage mais xam nga ñi wax ne soble mbay du leen arrangé ñoom dañuy jënd soble tubaab ku soble mbay arrangé nga jënd soble mbay Alioune Badara Ndiaye ci jamono joojee nag ñuy waxtaane wàllum njënd ak njaay ay jaaykat yu faree ca diwaan ndakaaru ñoom nag yàqule nanu lu baree bari ci ay euh, marchandise gannaaw ba nga xamee ni ay waay manifesté di taal nag seenu ko njaay lu ni mel itam bañu ko gam-gamlee euh, ci ay koppar takku na lool xaadim loo euh, kenn ca ñoom la ñuy teewlu ay kàddoom ñun dañoo nekk ay liggéeykat yi nga xam ne dañuy yëngu ci li nga xam ne moom la ñuy wax marché luuma marché luuma nag ci tënk mooy ñi nga xam ne jaaykat yi nga xam ne dañuy jóg di toxu ci gox yi fasandikoo yi tey bu ñu nekkee fii boo liggéey ñu ngi fële ñun nag wax dëgg yàlla yàgg nañ ci liggéey boobu suñuy bàyyi lañ ci fekkoon ñu mel ni ñoom bàyyi sangu jóg ak sang gay ak ñoom Pape fekk suñu mag ñu mel ñoom Cheikh Ndiaye ñuy toog ba tey mu mujjee suñuy loxo wax dëgg yàlla nag boobu ba léegi ay at ngi nii ñun ngi koy def bu àndul ak benn coow àndul ak buri àndul ak dara te wax yàlla nag liggéey boobu ñuy def benn bi ci njëkk mooy facteur de développement la régulateur société la parce que li ma ciy joxe firnde mooy marché luuma rek laa ci gis ci marché boo xam ni bala moo teg fi muy teg dafay fay ba noppi te fay bi muy fay directement ci état la jëm mais bagage yooyu ñuy taalal tey jii ñun mën naa ne suñu lépp ci la nekkoon suñu njaboot ci la nekkoon suñu lépp ci a néew moom seen liggéey la mooy UC bi ñu ko xoolee saytu ko dem na ci cent vingt millions trois cent vingt mille kayit yaa ngi fii ñoom ñooy waa kaaf ñi ma fi waxoon sànq ñi xam ñoom ñooy importer bagage ñoom ñi ngi toog xëy na dinañ dëggal après li ma wax loolu nag lañ ne woon tey yi ci gàttal dinañ fi ñëw jotali ko waa réew mi jotali ko kilifa réew mi jotali ko ñëpp ñi xam war nañ cee jot a à travers presse ñu xam ne seen njaboot jaaxle nañ seen njaboot ñu ngi ci ay jafe-jafe bu ci yàggul dara li fi xew ñu ñëpp gis nañ ko événement la yoo xam ne bi muy am ñun liggéey rek moo ñor ñu ngi woon suñu liggéeykaay di liggéey fa la ñu fekk taal suñuy bagage lakk ko ba mu jeex heure boobu suñu ngoon tuuroo suñu bët bu xonqoy président Idi Thiam la ñuy gis ak ina quoi moo waral nag tey jii ñu ne suñu kàddu kon dinañ ko jotal ci réew mi yëpp suñu kilifa yi nga xam ne war nañ cee jot jot ci waa UNACOIS jàppo yooyee nag ñu seeti yoon ñoom itamit nag nee nañu daañu leen gunge yu mel ni nag daal di ah, dàkk ndaxte nag mënatul wéy ñu yàqal ay daan doole Matar ja moo wax ci turu Idi Thiam ay kàddoom ak Arona Niang. ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di ñaan borom bi tabaraka wa taala ci baaxam ak yërmandeem jotaay bi doon jotaay bu jur njëriñ pour ñi nga xam ne ñoom ñoo impacté wu jur njëriñ pour Sénégal yëpp président Idi Thiam président bu UNACOIS waa jàppoo dafa njoboote képp koo xam ne kii commerçant nga wala industriel nga yëpp opérateur économique kiy jaay caaf ba ci ki am industrie kon su ngeen impacté ñëw si moom ñëw ngeen fu war a ñëw te dañ jël disposition yëpp parce que réew mi il faut ñu xoolaat parce que dañuy dimbale xale yi dañoo war a dimbale xale yi dañ leen jàppalewul dañ leen defalewul nangam ñuy dugg ci gaal yi di dem mu am ñoo xam ne dañoo gëm seen bopp di liggéey ci réew mi di tekk ci réew mi am senes tuut ñooñu buñ leen sàgganee ba lépp lu ñu liggéey mu yàqu kon mel na ni ñu ngi dimbale ñuy dem ci gaal yi ñooñu buñ leen protégé wul mel na ni ñu ngi yàq suñu réew ñu ngi dimbale chômage kon li war léegi mooy ñooñu ñu protéger leen de telle sorte que ñu mën a liggéey en toute quiétude parce que réew li koy développé muy gëm sa bopp ndimbal na ci fekk loxol borom état buy dimbale ñu mel ni yéen la war a dimbale ñi nga xam ne dañoo xaar seen tànk tubéy fas seen sër di ñaq pour tedd ñi nga xam ne liggéey ñu di ñëw di leen yàqal ñooñu leen di amnistie di c'est pas normal parce que loolu mooy encourager bu ëllëgee lu mel noonu di amaat dañ leen war a décourager de telle sorte que bu manifestation amee kenn dootu ko defati képp ku yàq yëfu jaamul ñu teg la ci yoon teg la loo xam ne daan boo xam ne bu ëllëgee sa morom bu ko gisee dootu ko defati waaye liggéeykat yi di liggéey yàqkat di yàq kooku du dëgg du yoon c'est pas la démocratie c'est de l'anarchie président moom du far kuy tooñ képp ku nekk ci njabootam ku la tooñ na ko lu nekk jaral ko bakkanam kon nag na ngeen tranquille xam ne nous allons faire tout ce qui en notre pouvoir pour que vous soyez protégés dans l'avenir parce que ce n'est pas seulement de vous rembourser ou bien de vous indemniser mais de vous protéger pour que l'avenir ne soit pas comme aujourd'hui Matar euh, Dia euh, beneen perte man nag bu gën a métti loolu itam daal di aju ci wàllum bakkan ma nga amee ci diwaan euh, bu Ndar Géej gannaaw nag gaal ga fa suuxoon ci ay way mbëkkkat moom nag yilimaani jëwriñ yi di Amadou Ba demoon na fa ngir itam daal di saytu nemmeeku situation ba ay kàddoom euh, Bara Diop moo ko taataan. li nga xam ni man moom moo ci gën a touché mooy xale yi ma dajal tey ñu ne ay rescapé ñoom ñëpp ku ci nekk am na ci loo doon yëngu laaj naa leen bi ma leen laajee ñoom ñëpp ku ci nekk nee nga man bés bu nekk daan naa am juróom-benn téeméer am na ci ku ma ne man bés bu nekk daan naa am junni ñi ma gis ñëpp tey amu ci kenn koo xam ne daaw yëngu ci lenn booy am junni bés bu nekk ak liggéey bu mu mënti doon bu weer wi deewee di nga am fanweeri kooku lu am solo la muy liggéey boo xam ne boo ci jàppande di nga mën a am dara ndax ci loolu la ñu jël pour mën a fay ñi leen di andi li ñu wax aussi ci ñi leen di andi mooy publicité la da ngay toog gis ci réseau sociaux yi kenn koo xam ne demoon na wala koo xam ne sax na photo yi ñu defar la nee la ñun ñu ngi ci dëkk nangam am nañ fa lii def nañu lii gis nañu lii ñoom ñu ci ëpp ci ñoom loolu la ñu wax ne moo leen yóbbu ñoom yëpp ñu am luñ ci rëccu leneen li aussi dëgg la Sénégal lañ jógee ndax gaal bi nga xam ni am na jafe jógee Joal mais ñi nekkoon ci gaal bi du ay sénégalais kese ñu ngi jóge ci yeneen réew yoo xam ni ñoo bokk frontière ñu ñëw fii ñuy jógee Guinée am na sax ñoo xam ne fi ñuy jógee ci Guinée amul frontière ak Sénégal ndax gis naa ci ñaari xale ba ñetti xale yu ma ne ñu ngi jógee Zérékoré Guinée forestière kooku sori na Sénégal dafay wane ni trafiquants yi dañuy am ay méthodes yu xaw a doy pour mën a nax xale yi pour andi leen kooku état baa ngi ciy xeex mais état bi dina ci gën a xeex je pense que kooku war na doon loo xam ni ñun ñëpp war nañ ci gën a taxaw ndax ni ñuy naxee xale yi di leen sànq mu mel ni réew mi dafa am ñu ay jafe-jafe waaye du fi mu toll ndax ñi dem ñëpp ku ci nekk am na loo yor ndax ku ci nekk fay nga téeméeri junni ñi ma gis ñëpp tey ku ci nekk am na loo yëngatu wane nga ko kon loolu dafa laaj ci wàllu communication ci wàllu xeex mi ñu continuer ko pour que mën a tere loolu parce que trafiquants yi ñu ngi gàkkal daru réew mi extrêmement important ñu ngi lor way jur yi ndax seen njaboot yóbbu leen jëmale leen ci musiba yu mel nii di ñaan yàlla allah en tout cas teg nañ ci sunu bët incha allah dinañ defal compte rendu président de la république. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. juróom ñeenti waxtu nag jot na ba tegal fukki simili ak ñett ci IA ñu daal di waxtaanee nag wàllum éducation bu weesoo itam euh, saytu wàllum euh, lekkool bi ñoom nag waa SADEF ña nga doon amal rek ab ndaje mu ama am solo fii ci euh, Kaolack ca ndaje ma nag waxtaanee nanu fa tolluwaayu réew mi dikkaat itam ci résultat yi tukkee woon ca élection de représentativité syndicale yàgg la ci cour suprême wax SADEF syndicat la ci syndicat jàngalekat yi Alioune Badara Diop. syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation ñoom ñu ne nag ñoo amaloon ab ndaje bu am am selo bi ni mel la mën a jàpp ne mooy première édition journée d'intégration ñu amaloon ko fii ci doon bu Kaolack Ndangaan mu doonoon nag ndaje boo xamante ni nag dajale woon na ñu yëngut ci wàllum jàng jàngali bokk ci kuréel yu bëree bëri Abdoulaye Ndoye moom mi la mooy secrétaire général bu SEDEF départemental. ndaje bi lu ko war moo dafa am bi ñuy wax SEDEF syndicat autonome mbiru école mais jëlee école nekkul rek syndicat boo xam dafay taxawee si di xeex maanaam di dem ay grève ak yooyu noonu mais dañu ne attention lii dafa nekk suñ jumtukaay école bi faw ñu taxaw seetlu lii lii di raam fan la jëm. défi yi nga xamante nag war nañ ko relever fokk nag wees na ko lépp na bokk na ci jéem a ñoŋal baax a baax wàllum njàngal njàngale ci doon bi lee njeexital bi dara rek la mën a jur moom mooy lan da ngay gis élève bi taxawaay bi mu am moom lu ñuy wax niveau taxawaay bi mu war a am ak bu muy am du doon benn élève soo ko jëlee am na ay at ginnaaw mënu na ko tey jii nii soo ko jox amaana mënu ko loolu nag dafa am xam-xam moo koy sayt parce que doo tëb rek wax ko nii parce que benn suñu la waxee maanaam làkkum français benn compétence la si neuf compétence xale bi mun na bañ a mun a làkk français fekk am na yeneen yoo xam ne mi ngi fay exceller Mbaye Sarr moom mi la mooy secrétaire général bu SADEF national teewoon na ci bés bi ni mel àdduna ci annulation bi nga xamante dem ñu ngi xam ne moom la Cour suprême joxe dafay annuler l'arrêté bu proclamer les élections générales de représentativité des syndicats d'enseignants gis nañ nag ministère du travail mu sànni benn communiqué pour jéem a yëfi caaxaan la sax laa koy tuddee parce que bu fekkente ne moom ci boppam ci communiqué boobu dafa nangu ne la cour suprême annulé na arrêté bi mu jëloon te mu proclamer les résultats yi jóge woon ci élection yooyu wante mu ne dafa am benn détail bu muy wax mu ne kat dafa am bi wante résultat yi ma nga fam taxawu ñi yëngatu ci wàllum jàng ak jàngale rawatina nag ñoom ndongo daara yi sa def kuréel gi ni bi ni mel ci noonee nag jot nañ ñaax ñi nga xam ne kilifa yi nekk fii ci diwaan bu Kaolack ñu gën a joxaat gëdd lii di wàllum jàng ak jàngale ndaxte jàpp nañu nag moom moo doon avenir u ëllëgu suñu réew Alioune Badara Diop syndicat boobee nag bëgg nañu rek jamono ju nekk ñu dëggal seen ak bopp ci kër taxawaay boo xamee ni day laal pàcc yëpp donte ne njàng ca gën a fës Abdoulaye Ndoye secrétaire secrétaire général départemental SADEF bu Kaolack bi ay kàddoom ak Alioune Badara Diop. waaw première édition intégration moom mooy loolu dañoo taxaw jigéen ñi en première ligne mais aussi jeunes yi ñu dikk taxaw ne maintenant léegi lan la ñuy jéem def nañ jéem xool Kaolack nan la ñuy taxawee taxawaay bi mooy lan nañ jéem a xalaat ay xalaatin yoo xam ne nii jëmale si école ginnaaw xool nan ñun lañu ñu a mun a participer si développement école jigéen bu ñu ko defee ñëpp daje ñu taxaw jëmmal ko waxtaan si teg ko donc mu indi at ñu nekk nag ne suñu taxawaay fexe ba at bu nekk ñu feexe nañ ko pérenniser ñu jéem a ay thèmes yoo xam ne nii yu am solo la parce que beneen bi mi ngi indi biiru jigéen yi parce que l'école syndicat aussi dafa nekk lu social parce que am na beneen boo xam jigéen la ak liberté yi ñuy wax jigéen maanaam ak religion yooyu dafa am solo donc euh, sooy gis ne syndicat bi au juste nekkul ne dañoo romb syndicat boo xam ne nii rek dañuy wax ne syndicat de toppatoo ak ak yelleefu jàngalekat bi la mais dañuy jéggi foofu noonu ne syndicat bi dafay nekk syndicat de développement dañuy jéem xool couche société bi yan problème la am ñu xalaat si anticiper si jéem si indi solution ñun loolu moo nekkoon suñu taxawaay tey grève moom fu mu am jeexital bi baaxul si élèves yàlla dafa dogal sax ñu am ay jàngalekat yu xarañ yoo xam ne même su fekkee dem nañ grève am nañ ay raccourcis yu ñuy jël mais loolu nekk na loo xam ne baaxul parce que gouvernement mi ngi koy seetaan baaxul parce que tey jii jàngalekat bi mun na defar élèves yi mu jàll examen mais lu ëpp solo mooy lan ñu dañoo war a defal koo xam ne nii dana nekk ji ëllëg dana nekk kilifa dana nekk borom xam-xam mën a jëriñ réewam moo tax ne plutôt dañuy soxla élève bi suy jàng mu am benn niveau boobu moo gën ko aussi mu taxaw di ko jàngal ci ay continue muy dem alors que dana dem ba egg ci cappaandaw ba ba jeexal ay jàngam fekk du mun taxaw réewam parce que juste soo koy remonté lan lay doon parce que dafa am manquement yoo xam ne ni dafa am ci ginnaaw maanaam moment yi muy jàng ay mbir yu comme ay grève yooyu noonu tax na ay compétence yu bëri yoo xam waroon na ko installé mu raw ko. Abdoulaye euh, Ndoye euh, ca ndajem intégration boobee nag teewoon na euh, ci coowal résultat yeeg Samba si euh, soxal nag élection de représentativité euh, yi naka noonu itam daal dinay naqarlu bu euh, baax a baax agression ba ñu def ca kaw may Maïmouna Ndour Faye mbay Sarr bi ngi ci micro Aline Badara Diop. d'abord damay massawu la famille de la presse di massawu la direction générale de la 7 par rapport ak li nga xam ne moom moo xew muy jëf ju ñaaw jëf ju bon jëf ju nga xam ne ñëpp dañ ko condamné c'est pourquoi au nom du SADEF dañ koy condamné ko naqarlu wante aussi dañuy les autorités notamment le ministère de l'intérieur pour que ci nu mu gën a ñu def tous les voies moyens pour que ki jëf-jëf ju bon jooju jëf ju ñaaw jooju ñu jàpp ko sanctionné ko conformément aux lois et en vigueur dans notre pays Sénégal république la il faut que les lois ñu koy respecter la presse joue son rôle te mënuñoo nekk ci réew mu ñu naan démocratie la ba pare presse ba fa place sans la presse il ne saurait y de démocratie développement de la société moo tax ñu ngi wax la ministère de mais bu ñuy wax résultat kay arrêté bi ministre bi jël mooy jëmal résultat yi moo koy authentifié moo koy rendre officiel bu sagam arrêté boobu lañ ne nul na kon lépp lu arrêté boobu ngeen kon loolu nul na c'est évident mais muy bëgg a caaxaane nit ñi di fantoo nit ñi di communiqué yi ñàkk fayda yi li ñu koy wax kay mooy li sàmm si waroon def tey mooy dafa waroon a sargal la cour suprême sargal le CELSA ba pare moom ci boppam mu démissionné de son poste de ministre parce que jamono ji ñu nekk nii waratul sax jiite le département ministériel ba mu nekk nii parce que dafa échoué lamentablement ci organisation élection yooyu ndax élection yu bon a bon a la sàmm si organisé ndax mosoo gis élection yoo xamante da amee ne élection yi jàll kenn xam na ne jàngalekat yi wote wuñu ñi waroon a wote wote wuñu ay informaticiens entre guillemets la ñu jël ah ñuy wote en lieu et place de ces enseignants là loolu dèjà jalgati gum garaaw a gaaw li mooy nañu tëggaat élection yi syndicat bu wóolu sa bopp nga déposé waat sa candidature ñu dem ci élection yi looy am jël euh, ci Mbaye Sarr moomee nag la ñuy euh, itam daal di addu rek ci agression euh, gi nga ne def nanu ko ci waay taskatu xibaar bi lee di Maimouna Ndour Faye kuréel gii di Sampix ñoom tamit nag jibali nañu kàddu a ah, naqarlu ba fa naqarlu yem wàllum ah, liberté ah, de la presse bi ñu bëgg a salfaañe ci réew mi maanaam daal ku wax ñu attaqué mbaa ñu saaga la Bamba Kassé moo ca doon jibali kàddu. benn victime ngi ni ñaata semaine ñaata weer ñu koy daggal comme daggal dafa xew. fu mu gën a ñaawee bu ma gëstoo kan laay gis keneen en fait. fii bu ñu ne yëkkati leen seen loxo yéen ñi nga xamante ne ay journaliste ngeen kenn musu leen saaga kenn musu leen xarab kenn musu leen menacé est-ce que dina am ñu mën a yëkkati seen loxo bu amee tamit du bëri wala bu amee rek fekk na ni sa kanam wala sa tur teguñu si kanam wala xëy na musoo wax ci média Sénégal musul mel noonu dañoo ti dëgg ñun te yàlla dogal na am nañ presque vingt ans de service mais ça veut dire que am na fu ñu tàmbale donc ça veut dire am na lu ñu teg suñu bët fekkee nañ au minimum ñaari alternance politique affaire yi tàngoon na lool journalistes yi souvent ba ci très récemment position athée nañ doon nekkee athée nag day ànd ak nga wax dëgg même bu fekkee ne ki ngay waxal li nga koy wax neexu ko Sénégal kañ ngeen gëj a dégg borom xam-xam yi ñu nangoo jóg ñëw si média yi pour atte askan wi dañu wante dëgg pourquoi parce que boo nekkee borom xam-xam ñu xam ni médecine xam nga ko ku mel ni par exemple bi Covid bi xewee damaa gis benn waay professeur Seydi mais professeur en médecine la professeur nekkul docteur rek yam ci nekkul docteur spécialisé professeur la yàlla xam na ni man rek xëy na la tolloon njàng professeur Seydi wax benn yoon ma gis waa ji wax ci ñetti plateau di ko démentir loolu moo tax borom xam-xam yi lëlu borom xam-xam yi bu ñu lëloo borom barke yi lëlu borom mbooloo yi lëlu lii des ci pénc mi du bëri bu journaliste yi ragalee ah bu boobaa nag ku mën sa morom dumalee doon ndax jumtukaayu te yi ngeen di gis nii daanaka bu fekkee ni da ngaa nekk ci langu politique wala nga nekk ci langu influence xëy na sax doo leen soxla mën nga ko defal sa bopp est-ce que foofu nañu war a yegg ma ñëw ci li xew dañuy sant yàlla on dit alhamdulilahi rabbil alamin et demande aux autres de le dire dans ñu xëyee ñu ne ñu Maïmouna Ndour Faye yónnee ñu états ñu gis ko yaakaaroon nañ ne xëy na balaa midi ñu bâche mais yàlla yàlla mooy buur yàlla mooy buur donc nañu sant yàlla. Euh, sant yàlla gannaaw nag ñàkkuma kaaraange googe nag am ci euh, réew mi euh, ñoom nag waa Synpics yi woon nañu rek nguur gi ngir itam mu daal di jël ay ma fexe nag ba ñu xam ki def mbaa ñi def ñaaw ñaawteef googe yoon teg ca ñoom a loxo Bamba Kassé ba léegi la ñuy teewlu ay kàddoom. ginnaaw bi ñu sant yàlla ba pare nag. dañuy joxoñ état Sénégal ne ñëpp journaliste maçon menuisier dawalkatu Jakarta ak ku mënti doon état du Sénégal moo yor seen karange donc nañu def li leen war suñu police ak suñu gendarmerie ci wàllum enquête am nañu xarañteef boo xamante ne jàpp naa ne bu ñu defee li ñu war a def du yàgg ñu xam ki def lii te dañuy soxla xam ki def lii ndax xëccoo politique bee xiiroo bi ak ngaayoo bi dem na ba ci dafa jël sax cas bi en otage xool leen réseaux sociaux yi ñii dañuy ñaawlu ñi naan non est du montage ñi naan nangam ñu naan nangam parce que xel yi dañ ko phagocyté ci mbañante ak ci bañeel ak ci bañeel nangu dégg kàddu bu ma nanguwul loolu mënul yor réew ñun dañu am fierté nekk sénégalais ñu dem beneen réew suñuy ndey fii nañ leen denc suñuy bàyyi fii nañ leen denc duñu daw mukk si dëkk bi dem feneen na Sénégal dellu fu mu nekkoon loolu pour dama tàmbali sama kàddu par naan violence policière il faut que ça cesse c'est en référence et en pensant à Absa bi mu waxee léegi dama rus ñun ñëpp dañu rus parce que un état normal ne peut pas fonctionner comme ça bii kaaw Absa am nañ numéro matricule am nañ photo am nañ vidéo na autorité policière def seen liggéey parce que dans tous les pays du monde bu policier defee bavure on dit pas que c'est toute la police dañ koy identifier extirper ko ne serait-ce que à lui-même et à ceux qui deviendront a teg taaj ko lu ñu ko war a daan ñu daan ko ko numéro matricule numéro chasuble vidéo et photo ñu xam ko xam ni kii la donc ñoom ñii kilifaam ñu ngi leen di woo ñu baral loolu déjà fi may tëjee mooy fi ñëpp laal bukki bu yebee waxambaane ci doxin ba tant que nekkuñu benn te muy lu dëgg nag nañu doon li ñu war a doon taxaw fi ñu war a taxaw bu boobaa néew ma lii doot fi am de mais dina fi gëj di wax ni na gars yi gën a mobiliser Kara Thioune les plus jeunes ne le connaissent pas il a fait l'objet d'une violence policière inouïe moom ak Kambel ñun ñëpp ñu jóg def benn say mu nekkoon biir stade defe naa violence contre un journaliste sportif gëj na am ñu gën a ñaanal Maymuna mu gën a féex mais li ñu laaj muy enquête bi mu gën a gaaw bu boobaa ñu xam ku ko def di leen wax ni violence policière il faut que ça cesse violence politique il militante il mi ngi noonu euh, xupp euh, geeg xoqatal gi euh, faw itam nag mu jeex waaye itam nag faw mu fekk waaye taskatu xibaar yi dëggal seen ak bopp benno loolee nag mooy xalaatu journaliste bile di Binta jàlloo moom itamit nag ma nga doon naqarlu ak sàkku l'enquête bu leex jëmee kon ci mbiram Maimouna Ndour Faye ay kàddoom moom itam ñu teewlu ko. mu metti ma rek parce que bi ma yeewoo vraiment ubbi sama téléphone di xool xalaat bi ma woon yem ci lii vraiment mun naa wax ne c'est bouleversant lii di dal te Maimouna Ndour te euh, man xam naa ne Maimouna Ndour jàmbaar la li ñu def nag du leneen lu dul ki def lii xaar ko si buntu këram mu ñëw à une heure du matin heure de crime mu ñëwoon liggéey si fii daan dooleem wàcc di ñibbi dem si njabootam wàcc gisul kenn ku dul un bandit encagoulé ñàkk jom bon soxor jël ko traîner ko dóor ko poignardé ko trois fois yàlla moo moo nanguwul mais il avait prémédité son coup pour tuer Maïmouna Ndour Faye après Maïmouna Ndour Faye kan moo ci topp chaque jour sama photo photo Maïmouna Ndour photo Ndeye Fatou Ndiaye ak photo beneen euh, journaliste ñu def ko dans les réseaux dañuy menacer ñëpp di ko liir kenn waxul il a fallu que ñu egsi fii pour ñëpp jug yaakaar naa ne nag nañ arrêté presse bii jot nañu ñu ñëpp ñu booloo nekk benn tant que ñu ngi ci suñu division bii nañu ko wax dañu diviser ñu naan presse bi kii la àndal presse bi kële la àndal loolu warul woon nañu boole waat suñu bopp bokk ndey bokk bàyyi faire face au monstre ndax nag lii mooy monstre de jóg nañu ci suñu kaw entreprise bu ñu bëgg a dérouler ci suñu kaw c'est pour nu faire ter bu ko defee lu ñu bëgg def ci réew mi ñu def xaw ma nag fu mu jóge ñu ngi xaar nag enquête bi ba xam lan lay révéler mais daal nañ jóg xeex xam ne lii du ay dénonciation du ay tweet du ay toog ci ay édition spéciale moo koy faj nañu génn ci mbedd mi yaakaar naa ne nag ñun ñii léeg léegi la ñu war a ñëw couvrir ndax nag ñu ngi soog a am soxla. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda ngeen di wéy euh, ba euh, di fi toppandi ay jukki xabaar yu euh, wér te wóor lii nag moom ab sabotage lees ko mën a tuddee muy nag li xew keroog ci manifestation bi nga xamee ne fippu ma nga ko doon amal ca Ndakaaru mbir ma nag ab pëccëxoo joorantey xeer ak it nag sannante li nga xamante ne rek moo di ay ngànnaay fa la mujjee doxoon nag ci diggante farandoy Ousmane Sonko yi ak xalifa Ababacar Sall yi moom nag Mamadou Sy Albert xelam màcc jëm ci wàllum politique àdduna ci ci waxukaayu Arona Niang. Trump bi euh, lu ko tax a jóg quand même lu rëy la mooy respecte constitution bi am élection sénégalais yi mën a tànn seen euh, président de la république loolu lu am solo la ñu fa daje ay parti politique la ay société civile la ay personnalité bon ay ñi nga xam ne am nañu plateforme plateforme bu mag la donc su dee loolu moo leen tax jóg xeex diggante militant waru yëngal lu ñu mën a mooy que ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite regroupement front bi mais nañu jàpp nañu jël courage wax ak parti yooyu ak seen militant ndaxte yaakaar naa wax dëgg aussi dafa bokk ci xeex bu dee da ngay ñëw pour yàq li nga xam ne Sénégal yi opposition bi yëpp moo ko bokk kooku moom da nga ko war a wax dëgg bëggul ñëw bu mu ñëw mais kenn mënul ñëw di saboter euh, as euh, regroupement yu mel noonu je crois que jar na quand ñu waxante dëgg même bu dee bu jaree ñu def euh, seen code de conduite parti bu nekk am code de conduite bi nga xam ne sa militant yi suñu ñëwee seen taxawaay fan la euh, war a nekk bañ a xeex bañ a xuloo naa daal euh, suñu jëlee seen responsabilité loolu du leen yàqal dara alertal parce que diggante ñaari parti mën na am ñu ñaari parti bañ juboo am xeex seen bi wante foofu diggante parti ak parti la mais loolu warul feeñ ci doxalin plateforme mi xam ne ñu ko bokk du parti rek du société civile euh, Sénégal opposition bi yëpp ñoo ko bokk def naa front bi war na ci bàyyi xel ndaxte loolu bu lawee day yàq lu bëri ci euh, manifestation yu ñu nar a def. Euh, Mamadou Sy Albert moom nag ab analyste politique la gannaaw ak génn bu am doole ba ñu defoon ci coowal dàqum élection yi amal nañu nag ñaareel bi génn ñoom waa collectif des universitaires pour la démocratie waaye nag bi la yoon jël nañu position ne ànduñu benn yoon. yoon euh, am loi amnistie ba nga xamee ni moom la ñu bëgg a daganal ci réew mi Abdou Aziz Diouf moo wax ci seen ak tur veille bi yaakaar buñ ci am mooy ñu waxtaan ak suñu askan parce que yàgg nañoo wax mais lu ci ëpp ñun universitaires yi bu ñuy wax ci suñu liggéey la ñuy wax te jafe lool mu doon egg ci askan bi mais li xew ci ba suñu génne ni ak euh, élection bu ñu gàntal dàq ko moo tax ñu ne gafadi suñu cër ci lu ñu xam ci suñu liggéey mu nekk yoon ci ñun ñu génn ñu wax ak suñu askan amnistie su ma ko mu ne expliquer moo mën a ko wax suñu mbokk sénégalais amnistie mooy maanaam dañ ñu woo ci ñu fàtte li fi am donte yàgg-yàgg il faut ñu fàtte ko mais balaa ngaa fàtte day laaj nga wax dëgg xam li am lu ko wund xam li am ñan ñoo ko def ku ci ñaawteef ku ci boom askan bi ci gaañ ay nit ci yàq ay alalu askan bi donc balaa ngaa baale balaa ngaa jéggale da wax li am devoir de vérité mais munoo ni jéggi gi li am ne nañu baale parce dafa di yoon dafa rafet ci suñu charte réew ñu def lu ñuy wax un devoir d'inventaire ba nga xam ne ëllëg li xew ni ci ni bu buñ ko saafaarewee duñ ci delluwaat ndax buñ ko bëggee fàtte saa aw ci fañ ko war a jaarale ci atte mun na am ëllëg li fi am ni amaat fi wala sax lu ko raw ci ñaaw ñaawteef moo tax ñu ne dafa di yoon amnistie bi ñu bëgg a proposé ñu taxaw temm ba du mun a nekk. li fi am lan la lan fi amoon. li fi am ci ñaawteef. mu ngi tàmbali pratiquement à partir de deux mille vingt et un. donte ñaawteef yi commencé woon na balaa boobu mais bu ñu eggee ci deux mille vingt et am na ñetti at ak léegi dafa jël ampleur boo xamante ni dafa jéggi dayoo. ñu gis fi suñu réew loo xamante ni daawuñu ko woon gis tàmmuñ ko woon di ko ràññee ci suñu société. Euh, la tax nag euh, ñu ne euh, ñu taxaw taxawaay boobee nag mooy enjeu justice ak yàqu-yàqu yu bari yi nga xamee ne eh, jaar na ci eh, réew mi ñu ne itam nag jaadu na ñu leeral ko ba noppi laataa ñuy wax waxu fàtte ak baale Abdou Aziz Diouf ba léegi la ñuy taataan ay kàddoom. ñu gis ay nit yu ñuy faat ci quantité boo xamante ni dafa jéggi dayo ñu gis ay xale yuñ fi tëj ci quantité boo xamante ni kenn mënul wax nu mu toll am na ñu naan ëpp na ay milliers de sénégalais yoo xam ne ñu ngi leen tëj ci prison ñii nga xamante seen xalaat la ñu wax ñi nga xamante ne dañoo génn ci ay manifestation di xamal ni li am ci réew mi ànduñ ci ñu tëj ci yàqal leen lu bare bëri ñii ñu yàqal leen seen njàng ñii ñu yàqal leen seen liggéey ñii ñu tas ci seen sëy ñii ñu tas ci seen njaboot am ñoo xamante ni yàqal nañ leen seen alal yàqal nañ leen seen am-am yàqal nañ leen lu bëri bëri bëri bëri donc ni ñetti at a ngi nii suñu réew xel yi dalul ndax amuñu jàmm loolu ñu gis donte gënalul kenn dafa di yoon ñu essayer xam lan moo ko andi kan moo ko andi ak lan la ñu yàqal ñu neew ñu bu ñu fàtte ndax yàgg-yàgg di jafe-jafe métti lu mu am faw nga mun ko fàtte ëllëg mais balaa ngaa fàtte nga wax dëgg ni jàmm parce que amnistie day woote jàmm mais munoo woote jàmm bu fekkee ni yow mu koy woote nangoo wax dëgg nañu wax li am d'abord ñu xam kan moo ko def ak ñan ñoo ci yàqule et su boobaa boobaa ñu mun a xam lan la ñuy def ci loolu moo tax ñu collectif des universités pour la démocratie ñu ne ñu ci projet de loi bi nga xamante ni daf ñuy woo pour ñu fàtte ñaawte fii am ba pare ñu ne kenn du ko saytu kenn du ko atte xabaar yi bitim réew ñu daal di euh, yem foofe euh, soobu ci xabaaru euh, biti réew yi yàlla nges ne tey moom noonu laa lay wooyee <laughs> waxuma yàlla mbin mm. naa waaye mi xëy alhamdulilah. mbaa waxee na jàmm kay. waaw mi soom. jàmm de def nga sa italien bu baax. waaw de moom tarkal. tarkal. <laughs> naka suba gi yaa ci jàmm. maa euh, xabaaru bi ci réew yi ñu hmm. doore ko ca Mali. Hmm. Alpha Yaya Sangare nee naa itam colonel la waaye bind na ab euh, livre ŋàññ l'armée ba. livre boobu nag moo ko jural ngi kat ñu mun koo téye moom mu leen nag di Alpha euh, Yaya Sangare doon ab colonel foofu ca réew. bu Mali ginnaaw ab livre boo xamante jot na ko bind nag xaatim ci euh, Mali euh, défi du terrorisme en Afrique maanaam Mali bi nga xamante ni euh, wàllum terrorisme doon na loo xamante lu fa fës la lool foofu ci réew bu Mali ginnaaw ci loolu nag mu a baax doxalin bi nga xamante ni l'armée bi ñu ngi noonu nag ci lañ jot a joxe li nga xam moo di obstruction ngir kat ñu dem ci këram daal di ko jël yóbbu ko ca kaso ba ngir kat ginnaaw bi nga xamante ni yëkkati na yenn ci ay kàddu yoo xamante ni bokk na ci wàllum diffamation wàllum Diarra bi nga xam nekk foofu ca réewu Mali moom Alpha Yaya Sankharé moom mi nga xam moom mooy auteur livre bi ni mel. Mhm. Euh, ca Gabon wàllu euh, njàng ak euh, mu mel ni ki jamono ji nag syndicat ya mer nañu ba futtu gannaaw ba nga xamee ne ñaax ca ñoom dañoo réer mër. réer mër lañ def ginnaaw nag ci ab ndaje boo xam ne jotoon nañ ko amal ñoom ñi leen nag euh, kenn ki di wuyee tudd di wuyee tuuru Alain euh, keneen ki di topp di tudd wuyee ci tuuru Nkulu ñoom ñaar ñi nga xamante ne bokk nañ ci euh, yenn syndicat yoo xam ñuy nekk foofu ci réew bu Gabon di xeex wàllum àq ak yelleef jàng ak jàngalekat yi nga xam ne ñu nekk foofu ci bu Gabon ginnaaw bi nga xamante ne amoon ab ndaje bu solo ci noonu nag ci lañ jotee gis na ba jamono toll nag tegaguñ leen gët jàpp ne nag ñoom ñi nga xam ñu bokk ci syndicat bi ni mel dañoo jàpp ne nag que état bi moo def euh, jéey bi ni mel maanaam ñun ñoo def euh, mbir mi nga xamante ni moo tax euh, ñoom ñaari doomu aadama yooyu ba tey mënaguñ leen tëggat ndaxte jàpp nañu ñoom ñooy li ñu revendiquer ngir kat ñu mën a am àq ak yelleef yoo xamante yi mucc ayib la doon foofu ci réew bu Gabon nag jamono toll moom coow laa nga fa jobboy hmm. coow laa nga ne fa comboy ñu waxtaanee wàllu Ukraine ak guerre ba fa mu mel ni ki nag congo ga nga xamee ne Russie def na ca Odessa hmm. mënees nay wax ne bilan ba ngay gën a yokk bilan ba ngay day gën a yokk ndaxte nag nemmeeku nañ lu tolloog ah, fukk ak ñaari doomu armée yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ginnaaw cong bi nga xam te mu ngi am foofu ca Odessa dañuy def leen ni mel du ñeen ñu dul waa Russie ah, mbir mi la mu ngi am nag ci guddi ajjuma jàpp samedi ci guddi ah, foofu ca réew bu Ukraine foofu ci réew Ukraine ca Odessa mhm. mu doon mbir moo xamante ne jamono toll nag lu jéggi dayo la ginnaaw bi nga xamante ne mekku eh, waxtu bi ñu toll eh, foofu ca réew bu eh, Ukraine nag moom jàmm amatu fa doonte sax dégg ni démb ci dimanche si ngoon gi ci lañ fësal xibaar yi nga xamante ni jot nañ bombardé benn immeuble foofu ci Odessa mu doon loo xamante ni nag waxtu bi ñu toll doon na ab njàqare bu am am solo boo xamante ni nag askan bi ñu ngi koy dund wante na ba tey nag moom mënaguñ wax ni benn solution jël nañ ko ngir mën a dakkal fitna ji nga xam am ci diggante ñaari ak ñu sant la gërëm la Italie rek moo ci waroon a bokk ndax italien bi moom tey moom tarkaal la ñu jox la dig daje ci xibaaru diggu bëccëg gi Aliou Badara yem foofee te dëgmal xabaaru tàggat yaa xam xabaaru tàggat yaram Euh, Serigne euh, Moussa kenn maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak euh, Ligue 1 fukki lu bëccëg beeg juróom Teungueth FC. dafa daan wakkaam ñaari bal ci benn jaraaf ak Dakar Sacré-Cœur dañoo tëw ndam demul ndam dikkul Sonacos dafa lapp-lapp yu métti ñi di waa jàmbaar ñetti bal ci benn US Gorée ak Génération Foot ku nekk benn bal nga dugal sa morom Sat Mbuur ak jamono bu Fatick ku nekk ñaari bal nga dugal sa morom AS Pikine ak Linguère ndam demul ndam dikkul Casa Sport dafa ñàkk ci kanam kanamu Guédiawaye Football Club benn bal ci dara foofu nag Teungueth FC mu jiitu ba léegi am ñaar fukki poñ ak juróom ñett topp ci jaraaf bu Dakar ñaar fukki poñ ak juróom AS Pikine moo jël ñetteelu toogu bi ak ñaar fukki poñ ak euh, juróoma bu dee nag euh, lu soxal euh, Ligue de bi foofu tamit fukkeelu bëccëg beeg juróoma amal nañu ko liñ ci mën a jàpp rek RS Yoff dafa daan CNEPS excellence ñaari bal ci benn Wali daan ak NGB ku nekk ñaari bal nga dugal sa moroom dem ba Diop ñàkk ci kanamu Amitié FC benn bal ci ñaar Duc ñàkk ci kanamu AS Douane benn bal ci dara Agel bu Tëngéej daan Oslo FA benn bal ci dara Thiès FC ak Kër Madior nam demul nam ñaar euh, dafa euh, tëwoo ak njàmbur ku nekk benn bal nga dugal sa morom. ñu daal di waxtaanee national 1 bi nag fukkeelu bëccëg bekk ñett nag avenir bu Dakar ak port ku nekk benn bal nga dugal sa morom AS bambay ak yëgoo ndam demul ndam dikul Africa Foot dafa daan AS Saloum benn bal ci dara asik ñàkk ci kanam modèle bu mbaaw ñetti bal ci benn Mbour Petite Côte ak Gazelle bu Kédougou ndam demul ndam dikul AS Kolda ak Don Bosco ñaari bal ku nekk la dugal sa moroom AS Kaffrine Tewo ak AS Cambérène ndam demul ndam dikul EJ Fatick ñàkk ci kanamu Kayor Foot ñaari bal ci euh, ñeent Ligue 1 bi àggale gi ñaar fukki lu bëccëg ak ñeent Toulouse daan Nice ñaari bal ci benn Lorient daan Rennes ñaari bal ci benn Metz daan Nantes ñaari bal ci dara ci Angleterre derby bi doxoon ci diggante Man City ak Man United nag ñi di Citizen yi ñoo ko mujj gàddu ginnaaw bi ñu daanee Man United ñetti bal ci benn lay dafa ñàkk ci kanamu Bournemouth fa ñaari bal ci dara ca Espagne moom ñaar fukki lu bëccëg bekk euh, juróom ñaar Villarreal dafa lapp lapp yu metti Grenade bal ci benn Atlético Madrid daan Betis Séville ba ñaari bal ci benn Mallorca daan euh, Gérone benn bal ci dara ca Allemagne ñaar fukki lu bëccëg bekk euh, ñeent FC Cologne dafa ñàkk ci kanamu Bayer Leverkusen ñaari bal ci dara Hoffenheim daan Werder Bremen ñaari bal ci benn ca Italie calcio bi foofu Hellas Verona dafa daan solo benn bal ci dara Fiorentina ak Lecce ku nekk benn bal nga dugal sa moroom morom Empoli yi ko daan benn bal ci dara Atalanta Bergame Bologne moo ko daan ñaari bal ci euh, benn ñu daal di dellusiwaat euh, fii ci sunum réew waxtaane li nga xamante ni moom mooy euh, basket ak li nga xamante ni moom mooy national bi résultat yi ci jot a tukkee démb nag ci góor ñi Mermoz dafa daan raay cinquante huit cinquante. Jaraaf daan ISEC 63 56 AS Ville bu Dakar daan jàmm gën 88 45 douane daan UCS 50 46 bu dee ci euh, jigéen ñi nag moom semte bu Ziguinchor ñàkk ci kanamu Jeanne d'Arc 45 66 Louga basket club daan USPA 68 64. dañuy des ci euh, basketball ca NBA LeBron James fanweeri at ak juróom-ñeent di basketkat bu xarañ boobu nekk ca NBA te gañe ñeent ñeenti yoon. jotoon na nekk champion NBA foofu ca Amérique moom nag battre de record bi nga xamante ni Karim Abdul Jabbar moo ko fa defoon ginnaaw bi mu dugalee trente huit mille trois cent quatre vingt dix poñ moom nag euh, di euh, LeBron James nag ci euh, weekend bi la dugal li nga xamante ni moom mooy quarante mille points te na ko nee benn saison boo xam ne mën na ko yokkaat ci li nga xamante ni moom mooy carrière am ci wàllum basketball. ma koog Gode Ndiaye gannaaw ba la ñaaree lekk ndaa jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat Jérémy li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud li ci euh, yéene kaay yeeg El Hadji Seydina Omar Cissé ah. ahlan bikum mbooloo mu bari bay tuuru fa ñoo dajaloo woon ca ndakaaru njaay ngir sàkku ci njiit réew mi Macky Sall mu jàpp bésu wotey yoor yoor yéen kaay ne ay kuréel yu bari rassemblement FDD ngir xamal fippu ci kaw njiit réew Macky Sall balaa la deux fa war a jàpp bésu wotey source a yéen kaay ne sénégalais yi fa ñoo mer ba futtu moo tax fa ñoo fippu mbooloo mu bari bay tuuru foo ko natt weesu na ko ndëpp lañ organisé ngir sàkku ci njiit réew mi mu def li ko conseil constitutionnel sant te mooy mu organiser ay su bañ a organiser xaar ba la deux su boobaa njiit fay dugal réewum Sénégal ci guuta goo xam ne kenn du xam nuñ koy lijjante vox populi mais sénégalais kay fa ñoo xam ñu leen naqari moo tax fippu mbooloo mu bari waaye nag seen daje boobu ñu amaloon fa mujj yàqu ndax wujje xeex diggante farandoori Khalifa Sall yi ak farandoori Ousmane Sonko ya ba sax takk der yi fa ñoo mujj ñëw tasaara leen gannaaw buñ leen jóoree ay grenade lacrymogène wal fajiri yéene kaay ne gat gat sa moo xam léegi diggante ñooñu Sonko yi ak ñooñu Khalifa Sall yi guerre bu métti lañ nekk waa Pastef yi ak taxaw Sénégal yor yor yéene kaay ne lu ji njaaga nag du kenn ku fa jël ay nitam ñu ñëw ca ndaje ma saboote ko yàq ko info yéen kaay ne ay xeer fañ ko doon sànniwante waa FDD ye nee na ñoom am na ñoo xam ne gis nañ leen xàmmee nañ leen fa ñoo yoroon ay jaas ak ay pompe à gaz jaxasoog mbooloo mi infiltré leen ba pare bëgg a seen ndaje ma moo tax waa FDD nee nañ fa ñuy porter plainte ñooñu tribune yéen kaay ne waa Pastef yi nee nañu Barthélemy Dias ci boppam ay nervi la fay xaalis ñu ñëw seen ndaje ma ngir saboté ko kon du kenn Barthélemy Dias la ñoom yàgg nañoo xamal ndaje te coow du xam El Malick Ndiaye ba mu jëlee kàddu fa ne ci ku lañ nekk ba di tuumal waa Pastef yi ci agressé bi ñu def Maïmouna Ndour te ñoom amu ci benn firnde loolu fa ñaaw ndaw taxaw Sénégal yi nag muy farandoor Khalifa Sall yi fa ñoo weddi ba tëdd ca naaj wa seetal Barthélemy Diaz ca la am keroog Mamadou Mbodj bu F24 ne faa bëgg ngeen xam ne ñun nekkuñ ay adversaire ñoo far benn adversaire lañ am war koo xeex mu organiser élection yi te mooy njiitëram Macky Sall kon ñu ni neen suñ biir waru ñoo xeex ak a jàppante tribune yéen e kaay ku naan leen yéen kujjey kay nekk leen foofu rek di xeex di rayante seen biir au lieu ngeen nekk benn si jamono ji nga xam ne njiitëram Macky Sall moom ma ngay doxal ay plangam l'observateur ne saaga bi dox diggante député farandooru Sonko ak Khalifa Sall yi boo moytuut fa nar a tas ku jege de opposition bi <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne ay bés bii tàmbali tey ci la lépp di leeree ci ëllëgu Sénégal élection yi fañ koy xamal wala duñ ko xamal su njiitira Macky Sall bañee organiser élection yi ba le 2 avril su fekkee fay dem comme ni mu ko waxee kan moo ko nar a remplacer su boobaa élection yi naka lañ koy organiser lii yëpp ci semaine bii lay leer a kaay moo ah, ci altine ji ci Sall déggoo su noppee moom njiitëram Macky Sall fa koy jébbal waa conseil constitutionnel na leen waa lu ngeen wax ci lii gars yi dana la deux juin ñu organiser élection yi ndax d'accord ngeen wala d'accordu leen li ñuy wax nag vacance du pouvoir fi moom la waxtaane Sénégal boo muytu fa lañ nar jëm mooy président Macky Sall bañ a organiser élection le 2 mu dem ñu lijjanti ku ko remplacer le quotidien yéen a kaay ne biir APR am na fa kilifa yoo xam xam nee na le bi mu passé ba léegi amul benn candidat boo xam ne valable nga fi mu nii fa caa yokk ca tribune yéen e kaay moom Souleymane Ndiaye fa wax ne Amadou Ba nekkatut candidat Benno Bokk Yaakaar pour muy leer te processus électoral bi fañ koy tàmbaliwaat à zéro 19 yépp kenn walaabalut fi mu toll nii Ismaïla Madior Fall jëwrin moom fa wax ne Sénégal ba léegi xam na démocratie bu mag boo xam ne royuwaay la ci Afrique man ko waxee a Macky Sall bu leen laajee seen xalaat ci li dialogue bi wax si jamono jooju candidat yi fukki ak juróom benn déposé nañ recours ca conseil constitutionnel mu war a leen a jàppal date léegi ban la ciy def Mamadou Lamine Diallo ne ak bu ci mën a def maanaam dogal bu mën a jël moom conseil constitutionnel ñun ñëpp fañ ci ànd fañ ciy d'accord far force la nag maanaam conseil constitutionnel bu jàppee datu élection yi ñëpp ciy ànd lu wax daal fañ ci war a ànd la mu wax nag moom Mame Boye Diao mooy ne ginnaaw le fa mu ca jëm fa wax na tamit haute trahison boo xam ne am na ko def réew mi nee na ab danger moo yoot su fekkee président ba a organiser élection ñu dem ba le 2 dem situation yooyu kenn mësul koo yaakaar na dana am Sénégal moo tax lijjanti ko a jafe bi ko wàll observateur laajee kañ nga mujj déggante njiitëra Macky Sall mu ne yàggut di matu sax ñetti semaine waxtaan nañ ma moom vox populi ne nappaate xuppaate gi njiitëra Macky Sall di def professeur Abdoulaye Dièye moom fa cee jaaxle Mamadou Ndoye ba tey ci vox populi moom fa wax ne d'accordu ci amnistie bi baxal ñi nga xam ne fa ñi doon ñaxtoog assemblée nationale tey lañ leen convoqué ci altine ji ngir ñu càmbar ko suñ paree taf-taf ñu oo député yi wote ko ba tey léegi si ko a kaay ne député yooyu war a wote sax loi amnistie boobu njiitëra Macky bëgg ñu wote ajjuma bii weesu njiitëra Macky Sall fa xoo mbooleem député yu benn bokk yaakaar yi dalal leen ca palais ba waxtaan ak ñoom na leen faay tàggatoo ak yéen ndax le 2 avril bu jotee faay dem dootuma nekk président bu Sénégal kon fa wala tàgguwut ko waaye lu a xew daal moom Léna Sène bi fi àndoon ak Idrissa Seck ca leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Maymuna Nduur Fay journaliste ginnaaw buñ ko agressé fi mu toll ni tane na bu baax a baax ay jege ñaaleem nee nañ docteur yi la ñuy déglu ñu bàyyi ko mu génn waaye fi mu toll ni moom tane na ma nga ca hôpital bu wakkaam exclusive yéen kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Vox Populi mooy Pape Abdoulaye Touré ci farandoori Ousmane Sonko yi la bokk fañ koo jàppoon bàyyi nañ ko mu génn léegi nag fa amal janab ko gaañ ko lépp ngir toroxal ko nee na ñu def loolu nag du ñenn ñu mooy ay nervi ak gendarme le point yéene kaay ne jëwriñ jii di Pape Malick Ndour fa dimbale askanu Bambey ak Jurbel utal xëy recrutement yu bari ci xëyu ndaw ñi libération moom fa ñoo xamal ne Amadou Amar ñu gënoon koo xam ci béy di xam nga fañ ko fekkoon mu faatu ñàkk bakkanam ci ab immeuble yéene kaay bi nee na waaye yëf yi ndeke lu doy waar la nag nam faatoog la ca am ak mbiru dorog yaag lépp yéene kaay bi fa ko leeral la mu leeral moom le quotidien yéene kaay mooy benn xale ndeysaan fa faatu ñàkk bakkanam ci ak lakk néeg baa tàkk ca kaw mu faatu ndeysaan yëf yaa nga amee ca Medina Yoro Fula jaajëf yéen itam jaageen jëf ci euh, déglu gi jaajëfal ko bu baax a baax moom Codou Seck kenn mi fare woon ci wàllum euh, machine bi Mouhamadou Khalili euh, ci partie digitale bi waaye duñu fàtte waa rédaction ak waa production ci jàppandal gi bu leen puus bu leen randal ci kanam tuuti maa ngi dikkaat ci seen émission tomb bés bi ni ki tey ji nag la ñuy waxtaanee mooy violence bi am ci réew mi ñu sedd ca nag ñaar ci ay poñ bokk na ca rek agression gi nga xamee ne def nañu ko Maimouna Ndour Faye waaye itam euh, violence bi nga xamee ni am na niki keroog ci manifestation bi woon ca dakaar ci diggante ñooñ Khalifa ak ñooñ Ousmane Sonko léegi léegi lay doon bu ñu noppee service commercial wéy leen di ànd ak sunu ay programme jàngeen jëfati. Le